kuy la bëgg nag kooku kuy la bëgg nag ngeen jàpp ko bu baax nee na naa si jàpp sëñ Touba bu baax xam ne amul kenn ku moom sëñ bi nee na naa si jàpp sëñ Touba bu baax amul kenn ku moom ngeen wàccee seen lépp bañ wàccee suñu lépp fekk si ko fekk si ko loolu yéen ko wax yéen ko waxal seen bopp ci mais yéen a waxal seen bopp kenn ku ne ba mu xëyee këram moom moo ci ay bokkam naa ngi jàpp sëñ Touba moom itam moom itam ku dikk fekk si ko moom ku dikk fekk si ko boo fi amee ñetti fan wala ñeent. mu yebal la nga dellu. boo fi amee ñetti fan ba ñeent mu yebal la nga dellu. la la la la la la taxal jóg dikk fekk si ko. la la taxal jóg dikk fekk si ko. mu def ko ci yow ba demee seen bokk topp si yow. mu def mu def ko ci yow ba demee seen bokk topp si yow. nga topp si ci moom. nga dikk topp si moom. ndax sa nekk sa baay ni si suuf nga ne sa kaw. ni sëñ bi ne la sa nekk sa baay nekk si suuf nga ne sa kaw ni sëñ Tuubaa rek ko mos a def. moo ko mos a def. moo ko mos a def. kuy topp kuy toppale. ne kuy topp kuy toppale. waaw moo ko mos a def. moo ko mos a def. kon nag jàpp nañ ko. ndey ak baay feete suuf doom. waaw sëñ Tuubaa rek ko mën. jàpp nañ jàpp ci ci moom. nee na jàpp ci seen Tuubaa bu ma di leen yëgal ne te tabaski ga wax naa leen di leen nun ay morit la ñu te duñu yam dong sax ci doon ay morit ay saarex la ñuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it gi da koo sos jële ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee ne tuubaa li abdin muridin saagaxin texe ñeel la bépp murid boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murid di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yëpp def ko te benn bu ngeen ci defan mu duñu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a waat ay saadix ngeen danaa mën a waat na li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xidmatin la wax aw bi hubbin la wax aw addiyaati la wax te yooyu yëpp maase ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la mën lépp kon nag seenu saadix moom mën naa koo seere fu ne. kenn amu ko kii nga kenn amu ko. bi nee sëñ Tuubaa kenn amu ko. da ngay sant bu baax. El Hadj Fallou Mbacké nee sëñ Tuubaa kenn amu ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. man man man rek moom rek la am. mais El moom lu mu sëñ Tuubaa. bëgguma leneen. mais bëggul dara lu may sëñ Tuubaa it. bëggul leneen. lu may sëñ Tuubaa rek. waaw. ma di leen yëgal nag ni leen nun sëriñ Touba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll sëriñ tuuba amul man naa daale fu ne di bërëmu waaye bu yegsee fi sëriñ Touba fi lay yem kon nag ngeen yëg ne euh, sëriñ Touba moom nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da koy wax ne ko jébbal naa la sama bopp àddina jébbal naa la ko àllaaxira moom it mu wax ne képp koo xam ne ñëw nga fi man te àddina indi la fi jaaxaloo ma ndax yàlla jox na ma ba mu doy sëkk soxla soxlawu ma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne indi na la loo ci soxla mënal naa la ko te dinaa la ko defal wax ne kenn rek moo mën a jaaxal koo xam ne xaw ma na ma koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def na bëriwul